asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi maa ngi leen di siyaar bu baax di leen nuyu di am kontaan ci ak mbégte lool ci jàkkaarloog yéen chaîne bi nga xam ni moom mooy mik point net waaye tamit yaakaar naa ni euh, barki démb am na émission boo xam ne jot na fee jaar muy émission boo xam ne moom mooy téere sëy téere sëy nag day émission boo xam ne li ko tax a jóg mooy mag ñi nga xam ne dañ daan sëy mbay itam ba léegi ñu ngi ci buumu sëy sëyee sëy ba rafet boo xam ne mën nañ koo nettali. mën na wax fi ñu jaar ba nga xam ne xale yi tey dinañ si mën a jële njëriñ waaye nag émission bi dafay wuuteeg émission bi nga xamee ni moom mooy nuroog émission Autotouxiduuna bii nag dañuy déplacé wu dem ba kër ki nga xam ne moom moo woote ak fu mën a nekk senegal ñu dékk suñu micro comme ni ngeen ko gisee ci image yi foofu su ko defee moom mu waxtaane nan la jaar ak boroom këram fan la jaar ak moom ci jamono yu muy metti ak jamono yu muy neex ngir xale yi mën ci ay njëriñ ndax dañu sétlu ni xalé yu bari légui roy ko ay ci biir neegu sey ta mag ñi nañ dan sey lu bax la lu rafet la fekke mag ñi genn nañu bobu secret bi dan sey dina tax tay xalé yépp mën ci jëlé ay njariñ bu baax a baax waaye tamit bu leen di fàtte sa boo leen soxla ñu ñëw def ak yéen émission ngeen wot numéro bi nga xamni mom moy mooy 77 818 37 56 mbaa tamit 78 604 46 62 bu ko defee dinañ déplacé wu ak équipe bi yëpp dem fekk leen fi ngeen nekk waxtaan ak yéen waxtaan ak seen dëkkandoo defal leen liggéey bu mucc ayib boo xamee ni kenn ku nekk dana mën a gis boppam ci li nga xam ne moom mooy néegu sëy boobu. kon loolu mu nekk euh, émission bu bees boo xamee ni télé bi mu ngi koy tàmbalee di ko def gis ngeen ko ci image yi yaakaar naa ne jeexagul waaye tamit képp koo xam ne rek euh, bëgg na jàppale euh, émission bi. bu wootee incha allah fu mën a nekk rek dañ ko mën a fekk foofu man koo jël waxtaan ak moom ci lu baree bari bari li tax loolu émission bi ñu taxawal ko moo di ne dañuy seetlu xale yu bari léegi seen sëy yi du yàgg sëy day gaaw am problème mais nit aussi buy sëy te fa muy sëyee am fa référence xamul na la ñuy sëyee xamul lan mooy secret sëy xamul lan mooy jamonoy faible mu jamono yu naqari ak jamono yu muy neex xale boobu mun na am ay jafe-jafe. ndax gis ngeen léegi xale yi dañuy sëyee léegi ana man ana yow ñu takkante sëy sëy boo xamee ni ñaare mun na am sax dafay am ay gàllankoor donte itam du sëy yëpp ndax am na sëy yoo xam ni takk nan ko la ñaa ngi sa sëy bu rafet mais am na sëy boo xam bu ñu ko takkee takkin boo xamee ni mbaa itam mu mel melokaan boo xamee ni soo ëllëgee mën na indi ay xeetu jëye kon émission baa ngi noonu moom mooy téerey sëy téerey sëy boo ko déggee muy téere boo xamee ni sëy moo nekk ci biir émission bi nekk ay sëy lañuy waxtaane ci biir sëy yu baax yu rafet ndax àdduna nekkul rek ay ñaawteef àdduna am na yu baax yu baax yoo xam ne mën nañ ko waxtaane ngir kenn ku ne mën ci jële njëriñ ndax yàlla wax ci alxuraan ne ne fa amma bene matrat ko fa xadis mu ne xewal yi nga xam ne defal naa leen ko di leen koy waxtaane te yéen mag ñi saa boo leen nëbbee ni ngeen daan sëyee doo leen ko wax xale yi tey xale yi mën nañoo réer te duñu am ku leen di gindi liggéey bi day day gën a kon ñu ngi xaar mbooleem mag boo xamee ni am na yéene woo ñu ñu fekk fa mu nekk ci biir senegal dénk suñu micro mu wax ak xale yi dénk leen nu ñuy sëyee wax ak ñoom nu ñuy sëyee su ko defee xale yi dana mën a góorgóorlu ñu ngi koy ñaan ñëpp nekk di ubbi suñuy bunt ku ñu mën a woo ak foo mën a nekk rek nañ la fa fekk dëkk la suñuy micro nga soññ xale yi nan la ñu war a sëyee jamonoy tey jii su ko defee sëy yi duñu gaaw a tas